tey tàmbalee sunuy kàddu ci ñaanal kilifa ak yoon wi Cheikh Mountakha sunu borom gën a guddal fanam lool yàggal ko fi lool te dëgëral ko te mottali mbooleem ay naalam ci toolub Cheikhul Khadim di ko ñaanalit mbooleem njabootu sëriñ Tuubaa gi yëpp rek ak taalibe yëpp dañuy tënk rekk ci wax lenn ci warteefu taxawal kër sëriñ Tuubaa ci barab yu mel nii ak njariñ yi ci nekk muy loo xam ne jàpp naa ne man mi koy wax ak yéen sax yéen a ma ko gën a xam ndax bu ngeen demee ba am pas-pas bi ba noppi it boole di dund ci dëkk bi dem ba yëg sentir besoin bi ne war naa am kon su boobaa jàpp naa ne li ngeen ci xam xëy na noonu sax duñ ko xam waaye xëy na ngir teranga ak labirante ak seenu bax rek ci lañu amé yéene jotal ci li nga xamné ne it mom lañu japp né warna fé mëna jall ndax importance bobu mu wax moy njariñul kër serigne touba bala ñu ci wax fawu ñu xam serigne touba ci bopam limu wote won ba tax loola soxla barab ndax sëriñ bi day mel ne sunu borom da koo jox ab mission boo xam ne mission bi ni ko sëñ Touba waxee mooy dafa ñëw ngir yeesal diine kon sëñ Touba li ko fi indi woon mooy yeesal diine yi lislaam ak yeesal sunna yonent bi lil Mustafa nawaytu maa yujaddidu sunnatahu alxara diinun siwa islamihi la yuhmadu inda al ilahi wa bihi nujaddidu kon moom taj giit moo ko fi indi woon giit nag mooy li tubaab naan rénové maanaam fekk lislaam na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi woon mu am ci yu ràpp am ci ñoo xam ne déggatuñ ko am lu ci bokkoon ñenn nat génnee ko ci am lu ci bokkul am ñu ko ci dugal sëriñ bi nag daldi ñëw ne lii sama mission mooy delloo lislaam ca cosaanam ba mel na ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam woote woon na mu meloon mission boobu nag kon mooy wooteb lislaam mooy li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon woote yonente bi lim njëkk a def mooy dafa mel ne dafa wut kërug lislaam kërug lislaam la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sos mooy fa ñuy wax daarul arqam fa la yonente bi dem anda ak sahabam ñuy wote l'islam ci ci bir ñu nek fa daan fa neubbu ngir jang l'islam ak jang seeni pas-pas kon keur serigne touba day melne lolu rek la moy sos barab bo xamne rek barabu kay la ba talibé bi mëna préserver wala mëna sam pass pas ndax lolu la yonenté bi defon ci darul arham kon keur serigne touba it day doon barab bo xamne ne danañ fa man di daje ngir xam seen diine kon kër lislaam tamit rek eh, la murid yi fas yéene taxawalal sëñ Tuubaa buñ xoolee Cheikh Muhammadul Murtada radiallahu anhu mi nga xam ne moom la yàlla jagleel man nga ne lu jëm ci lépp luy diaspora wala bitim réew ci woote sëñ Tuubaa bi sëñ Murtada daawul wax kër sëñ Tuubaa kër lislaam la daan wax buñ nee kër sëñ Touba mu ne leen mooy lislaam boo nee sëñ Touba mu ne la mooy lislaam kon moom dafa xamoon li tax sëriñ bi doon woote kon dañuy jàpp ne kër sëñ Touba gi kon këru lislaam la moom la murid yi bëgg a taxawalal sëñ Touba fii ci Toulouse loolu nag kon muy wax sëñ Mourtala jooju ab junju la boo xam ne kon ñun ñëpp dañ cee war a xamee ne sëñ Touba murid yi dañoo war a yaatal mbiram yaatal tamit ay këram ak i barabam ba ñépp mën a jariñu ci sëñ Tuubaa moo xam ab murit la moo xam ko dul murit la ndax sëñ bi moom ba mu ñëwee ñépp la ñëwal te ñépp lay jariñ euh, sëñ Tuubaa nee na am na fu mu koy waxee ne li ma yéene taalibe bi àjj ci man loolu laa yéene yeneen jullit yi nga xam ne duñ samay taalibe kon moom sëñ bi ñépp la jaboote am na sax foo xam ne day wax naan sunu borom nanga ma def ma doon koo xam ne jullit ñëpp ak jaam ñëpp dañuy jariñoo ci moom kon Sëñ Tuubaa njariñul jullit ñëpp waaye jéggi na lool waaye njariñul jaam ñëpp la wax naafiu bin fail ibaadil muminin mooy ne jullit ñëpp di jariñoo ci man wal muslimina wa ibaadul muhsinin ak mbooleem jaam ñi nga xam ne dañuy rafetal ñoom ñëpp nañuy jariñoo ci man kon Sëñ Tuubaa njariñ la loo xam ne njariñ lu universel la kon mission boobu ma doon wax nga xam ne moom la yàlla jox sëriñ Touba mooy la mu ko digaloon ca Mbàkke Kajoor ne ko ñi nga àndal nanga leen yar ci tëju kawe te bañ leen a yar ci njàngum kese booba foofa la mission sëñ Touba bi tàmbalee mooy woote yoonu murit mission bi nag bi mu ñëwee dafa soxla ay jumtukaay jumtukaay yoo xam ne bu ñu xoolee yi sëñ bi wax ci xukkal bu kaaw rek moom lay doon jumtukaay yooyu bokk na ci barab maanaam barab boo xam ne day yombal liggéey bi looloo waral sëñ Touba boo xoolee ci njëlbéenu ku woote bi yoonu murit ba mu demee Mbàkke Bawal rek ab diir la fa teg rek daldi sos barabu boppam barabu boppam boo xam ne da koo tuddee kër yàlla mi aji jàmmale muy daaru salaam daaru salaam la njëkk am kon sëñ bi moom li mu njëkk def mooy sos créer benn environnement boo xam ne dina dina dina dina propice wala dina adéquat wala dina yéwén ngir li ko yàlla jox mu man koo def mooy lan mooy tarbiye ñi nga xam ne ñoom la àndal kon Daaru Salaam looloo taxoon sëñ bi sanc ko mooy barabu muccukaay boo xam ne rek bu fa nekkee mook ñi mu àndal lim bëgg dana ko am ci lu dul benn coono ba jógee jugee Daaru Salaam it barab bam ca tegaat mooy tuubaa tuubaa it ak kër la woon kër goo xam ne it sëñ bi lam ko sañcee mooy ñaari kër yooyu ma wax mooy kër gi Daaru Salaam ak kër gi tuubaa loolu dafa mat a bàyyi xel ci képp kuy wutal sëñ Touba kër ndax sëñ Touba dafa waxoon ne mi ngi ci menanul baax xadim bu sëñ Bachir sëñ Touba dafa wax ne li waral Daaru Salaam ak tuubaa gënal ma fépp mooy day barab yoo xam ne bi ma koy sanc dama koo sañcee yéene ju sell la topp ay genti maam walla wala mbirum àdd walla wala yaxantu wala mbirum àdduna indiwuma fi woon waaye dama leen a sanc ngir jaamu yàlla kese ci ndigalul sama borom kon loolu dees na ci dégg ne képp kuy wutal sëriñ Touba kër war nga bàyyi xel loolu mooy yéene ju sell jooju kon kër sëñ Touba buñ koy tabax wala buñ koy jënd wala nuñ ko mën a amee ci anam wu dagan la ci njëkk mooy sellal yéene ji sëñ Tuubaa lépp loo koy defal ne yéene ji sell bu yéene ji sellee rek dana la fay ba fayal loo defut yéene ji sell jooju nag ci tënk rek mooy dañuy xool bi sëñ Tuubaa sancee kër yooyu lan moo taxoon moo di ko def ak nan la ko doon defee li taxoon mu koy def mooy jaamu yàlla kon kër sañ Tuubaa kër la goo xam ne kërug jaamu yàlla la war a doon kër la goo xam ne buñ koy sanc wala buñ koy taxawal tamit yàlla rekk a koy tax a jug du leneen day doon barab boo xam ne it barabub ja day barab bu yomb la ngir nit ki mën faa jaamoo yàlla waaye doon barab boo xam ne it barabub sàkku xam-xam la ndax sëñ tubaa këram gu mas am loola danañ ko fa gis dafa doon barab boo xam ne it dimbalante la sëñ Tuubaa këram saa su ne joxe yi mi ngi dem ak a ñëw maanaam kon mooy li ñu naan social rek doon barab boo xam ne it barabub gindiku la képp koo xam ne dangaa am gag bu la tëj ci lislaam boo duggee kër sañ Tuubaa loolu dafa war a saafaraw war a doon barab boo xam ne it bu dee ci réew yu mel nii képp koo xam ne africain wala sénégalais boo ñëwee ci barab booba di nga gindiku di nga retrouver wu ci say cosaan ba nga xam ne day mel ne yaa ngi ci sam réew ndax tumuraanke dafa metti maanaam sore sam réew xëy na dañ koo tàmm léegi waaye bokk na ci li gën a metti li lay xamal ne daa metti sëñ Tuubaa bi mu nekkee Gabon nee na am na bis dafa am ci kilifa yi koo xam ne da koo mas a dig parfum misk nee na bi mu ko ko diggee sëñ bi nee na may defuma ci sama xel sax ndax man moom du ma dërloo ku dul yàlla nee na waajooju ndeke digg na ko keneen koo xam ne kooka amoon na ci yaakaar ba bis kooka di laaj waa ji ne ko parfum bi ma joxoo diggoon de lan moo tax joxoo ko nee na ñoom ñaar ñu mujj nekk ca di xuloo xuloo bu metti nee na dañoo yendoo xuloo daanaka waaye nee na li ñuy xuloo lépp wolof la ñuy wax sëñ Touba nee na bi ma déggee ñuy wax wolof donte seen wolof yi neexut sax waaye dafa neex ci man ba mujj mel ne maa ngi samam réew maanaam ci xam ne tumuranke sori sam réew ni mu mettee kon kër sañ Touba it loolu warees na ko faa warees na ko faa bàyyi xel kon yooyu yëpp nag bu dajee bu dajee barab ba dañ koy mën a woowee kër sëñ Touba wala kër lislaam gi nga xam ne moom lañ sosal sëriñ Touba. bu boobaa it day dëggal day dëggal li sëñ Tuubaa ñaan ay këram mel noonu ndax kër sëñ Tuubaa dafa am nu mu war a yi ma wax léegi waaye kër sëñ dafa war doon barab boo xam ne day taxawee taxawaayu jumaa ak jàkk day doon barab boo xam ne it seytaane du fa am yoon ndax sëñ Tuubaa da koo ñaan yàlla te yàlla defal na ko sëñ bi nee na lépp lu ma ñaan yàlla yàlla daf ma koo jox ba noppi ne ma ñaan ko kon dañuy xam ne loolu lu am la kon buñ sosalee kër sëñ Tuubaa te loolu amu fa rek dañuy jàpp ne ña ko sos ñoom seen kër la waaye kër ga moom sëñ bi moomu ko sëñ Tuubaa nee na ijaal buyuti ijaal buyuti masajidan tazid taqarrubi lakk wa jannibnil marid yow yàlla samay kër nanga ko def mu doon ay jumaa ak i jàkk te it na nga fa sori na nga ma fa sori lépp luy seytaane am na fu mu waxit ne wajaal buyuti kullaha masajida yaa naa fiyan man laa yakunu sajida na nga def sama kër yépp mu doon ay jàkka te nga dàqal ma fa lépp luy seytaane kon kër sëñ tubaa seytaane waru faa am yoon kon kër sëñ tubaa képp ko taxawal dafa war a doon rek kon ak tuubaa wara daaru salaam li sëñ bi defoon ak tuubaa tuubaa buñ ko waxee mooy ak texe kon kër sëñ tubaa texe la war a doon ci mbooleem mbindeef yi yemul sax ci muridi yi yemul ci jullit ñi waaye kër sëñ tuubaa fu mu nekk rek foofa ak texe la war a doon ci képp ku fa dugg te tuubaa moom boo bëggee xam na mu mel dangay xool ci Matlabul Fawzayni rek sëñ bi bi mu sañcee Touba muy ak kër ci la bind xasid ak Matlabul Fawzayni daanaka wax ni mu bëgg kër gi mel ni kon kër sëñ Touba képp ko ko sosit rek dafa mel ni danga ngaa war a tënku ci programme ab Matlabul Fawzayni mooy yem ci ñaan rek nanga ma ko defal mu doon dëkku gindiku wala boog doon barab bu ñuy sàkkoo xam-xam doon barab bu ñuy déggee masala doon barab bu ñuy taxawalee julli juróom. ak doon barabu wërsëg doon barabu sécurité doon barab boo xam ne danga may musal ci ay kàccoor ba yooyu yëpp jeex rek doon barab boo xam ne it danga leen di musal ci alxisbul baaxin mooy ñi nga xam ne rek xëy na ñooy xisbu seytaane ci wax ci waxin ndax dafa am ñaari xisbu mooy xisbullaahi ak xisbu seytaane xisbullaahi mooy ñi ànd ak yàlla xisbu seytaan mooy ñi ànd ak uh, seytaan lain mu ne nag na nga doon barab boo xam ne danga leen di musal ci pexey ahlu seytaan yi ahlu seytaan nag mooy boo ko waxee rek nekkut seytaan en tant que tel waaye mën naa doon jëmmi doomu aadama jëmmi doomu aadama joo xam ne day ñëw di def luy gàllankoor liggéey bi wala di leen di wax loo xam ne day gàllankoor ngir ngeen am kër gi léeg-léeg nit mën naa sasu wala boog jaayante loo xam ne daf koo bëgg a def kër sëñ Tuubaa day mel ne seytaane day taxawal jëmm ci wetam muy wax ak moom di ko xamal ne wàññil sas wi wala li ngay def du farata wala am na lu gën a nekk priorité loolu seytaane yi pexeem ci ay pexeem lay bokk ndax sunu borom da koo kàttanal ba lépp lu nit ki bëgg a def ci lu baax rek nu mu mën a def ba gàllankoor ko su la ko mënta tere cent pour cent it dina fexe ba nu mu ko wàññee loolu ci ay pexem la bokk loolu nag sëñ Tuubaa ñaan na yàlla di musal ko ci mbooleem ay ay barabam <coughs> te moom sëriñ bi fépp fu mu mas a am kër buñ xoolee tamit lam daan def ci këram rek jàpp naa ne képp ku koy wutal kër tamit loola nga war a sàmmonte te mooy lan kër sëñ tuubaa guñ mas a gis day doon kër goo xam ne julli mbooloo dañ ko saxal kon kër sëñ tuubaa jàpp naa ne julli yi juróom moom faw dafa war a sax num ko waxee sax manaan jamaatan tuqim asala asalawaati alxams da ban ya xakim na nga ma defal mbooloo moo xam dañuy saxal di julli julli juróom waaye di ko def ci mbooloo kon ku tabaxal kër sëñ Touba war naa doon barab boo xam ne dañ fay saxal julli julli mbooloo mu doon barab boo xam ne it fuñ mas a gis kër sëñ Touba saa yuñ masaana julli waxtu yi muy julli suba wala julli tàkkusaan murid yi kenn ku ne di nga jël sa barab boo xam ne fay beru jàng say waqaf ak def sa wérdal maxuus kon kër sëñ Touba it barab la boo xam barab bu ñu waral yombalee la ak di fa soññee murid yi ñuy jëfandikoo werd wi nga xam ne mooy werd sëriñ Touba di werdal maxuus wi nga xam ne sëriñ bi nee na képp ku koy jëfandikoo di nga doon mu'min muslim muhsin maanaam di nga doon ab jullit dëgg di nga doon kuy rafetal dëgg di nga doon ku gëm yàlla dëgg nee na képp ku koy jëfandikoo seytaane dalay daw nee na képp ku koy jëfandikoo du gis lum ragal fii ci àdduna ak alaaxira ba mujj sax mu ne képp ku koy jëfandikoo daal sunu borom dana la defal yool boo xam ne amul fu mu yem uktub li man axasa wirdi yaa karim musaamilan bihi sawaban laa yarim sawaban laa yarim mooy mooy yi woo xam ne rek amut amut limite kon kër sëñ Touba yooyu ay fàttali la yoo xam ne jàpp naa ne murit bu fa ñëw bu nekk war naa yomb ci yow ñu jox la jëfa jumtukaay yooyu nga def ko jëfandikoo muy awraad yi di xasaayid yi naka noonu tamit muy barab boo xam ne it kër sëñ Touba moom loolu ñëpp xam nañ ko kër sëñ Touba saa su ne suba ak ngoon jàng alxuraan ak bind alxuraan loolu moom dafa am ñoo xam ne sax loolu lañ sasoo woon naka jekk daaray kaamil sëñ Touba kër gu mas a am day am daaray kaamil bibliothèque boo xam ne ay alxuraan rek a fa nekk ak nit ñoo xam ne wàccee kaamil bi buñ xëyee julli suba tisbaar tàkkusaan ba ngoon loolu rek mooy doon seen seen liggéey ba nëga ni fii nii ba fii nii mi ngi am njaareem ci kër sañ Touba gu mag gi mi ngi am tamit Touba kon loolu tamit ci mandaragee kër sëñ Touba yi la sëñ Touba yónnee na sax nit ñu dem ba Égypte jëndal ko ay téere ngir maanaam taxawal bibliothèque ci biir këram kon loolu tamit ci li war a am ci kër sañ Touba la bokk naka noonu tamit kër sañ tuubaa fu mas a am dina am daaray alxuraan dina am daaray xam-xam kon tamit jàngale xam-xam ci lay bokk fàttali ci lay bokk sëñ bi këram lim daan def mooy da daan pencoo mooy su masaana julli ba noppi léeg-léeg woo sëñ Malick Ndiaye wala sëñ Bay Sarr ñuy wër dëkk bi ñëpp ñëw toog sëñ bi fàttali leen ay bind wala yoo xam ne ay tomb lay doon wala léeg-léeg bu jullee ba noppi def ay tombam tomb yi ngeen di dégg euh, téere bii daanaka yooyu yooyu laa ci dajale mooy tomb sëñ Touba yi nga xam ne daf ko daan def digganteem ak mag ñi ku ñuy wax sëñ ma bàññi Ndiaye euh, nettali lam ca fekkee moom ci jataay yooyu yooyu yëpp sëñ bi daf ko daan def ginnaaw bu jullee ak bu soxlaa nit ñi di pencoo ak ñoom kon loolu tamit jàpp naa ne lu war a am ci euh, kër sëñ Tuubaa la mooy joxe bind yi ci dunduk doomu aadama yi ak lu koy jëriñ ak tey ak ëllëg naka noonu tamit noonu la daan bàyyee xel ñi nga xam ne ñooy soxna yi ci biir kër gi ñoom tamit dañ daan am seeni barab daan pencoo ak ñoom ba ci njàngoom xaside mi ni mu daan amee kuréel yi ci biir kër gi noonu la daan la daan amee jigéen ñoo xam ne it dañ daan yëkkati xasida waaye ci seen biir maanaam yëkkati xasida goo xam ne góor du dégg seen baat nee ñu sëñ bi da daan dugg ci keesug jigéen ñi bu ñëwee maanaam ci waxin day mel ne moo leen daan répéter ndax day ñëw wax bu jàngee jàng jàng ñu dégg ko ni ko waa kër sëñ sàmba daan defee mag ñi daan ko ne defee noonu la ko soxna yi daan defee waaye nag ci beneen manière bu bokkut ak nag ni ko góor ñi defee soxna yi dañoo amoon seen barabu bopp boo xam ne duñ gis góor ñi kër sëñ Touba danga fay dugg ba génn doo yëg na sax soxnaa ngi fi am na sax ku doon nuyoo ak moom bis bay waxtaan ak moom ne ko sëñ bi di jàmmanteeg moom ne ko sëñ bi ana soxna yi sëñ bi ne ko laata xarabu zina sëñ Mor Jooja Fall mi ci téere bi mi ngi koy nettali ne am bis boo xam ne sëñ bi dafa ànd ak moom ak guddi nga am la sëñ bi bu daan def dara sax guddi lay lay lay def la koy def ànd ak moom ba ca kees soxna ya nee na mu ubbi lu ndaw loo xam ne rek saako saako xorom bi dina fi xaj nee na bi mu ko ubbee rek daal ne ko sànni ko fi te daw xam daf koy soriloo lépp leen lépp loo xam ne rek lu jege kër jigéen ñi la kon daan na def loolu waaye bu ñu masaana ñëw day bàyyi ba mu guddi bu guddee su boobaa du leen gis ndax soxna yi nekkul rek ñim yor ñoo fi nekk waaye am na ñoo xam ne ay jàmbur lañ ci moom ci waxin ci charia ndax guddi gi la daan ñëw bu ñëwee taxaw ci seen wet def lu mel ne li ma doon wax léegi dafa leen di répéter maanaam day daaj daaj bi bu jàngee jàng jàng ay yoon bu waxee wax ba ne leen man ngeen ko buñ ne koo waaw sëñ bi danaan leen bu ngeen demee ba déggatu leen samay jéego man ngeen a jàng ci seen biir. soxna Awa Diop moo ko doon nettali nee na booba ñoom ay gone lañ yoo xam ne ay saa bàjjan nañ koy waxee nee na su boobaa suñ masaana dégg rëbb ximti daax yi ci la ñuy xamee ne ñi ngi ñaan mooy waxtu reer wi nee na ñoom ñëpp ci lañ daan yeewoo waaye soxna yu mag yooyu yëpp lañ daan nekk ci seen biir di jàng. waaye nag njàng mi ci seen biir lay yem génn góor du ko dégg kon loolu amoon na ci biir kër sëñ tubaa kon jàpp naa tamit li ma ci jublu rek mooy tekkiwut na fi jamono toll nag xëy na loolu du neex a def waaye rek activité culturelle yi am ak njàngale mi dañ cee war di bàyyi xel soxna yi ndax sëñ bi moo daan jàngalal boppam waa këram soxna amintaloo way juru sëñ Modou Moustapha ak sëñ Baara bi muy génn àdduna nee nañ benn benn leçon benn bind moo ko dese woon ci téere bi Risaala Ibnu Abi Zaydin nga xam ne kon kooku fóore la woon sëñ bi moo leen daan jàngal boppam euh, boo xoolee soxna yi nga xam ne masalan léeg-léeg nga dégg jenn doomi sëñ Tuubaa juñ naan la ndaam la ganee àdduna wala yu mel noonu loolu li koy waral mooy sëñ bi da daan jël soxna si yóbbu ko ca sëñ ndaam mu dem jàngi fa alxuraan ak xam-xam kon ñoom tamit ñu amoon cër lañ ci biir kër sëñ Tuubaa kon jàpp naa ne ñoom it ñu ñu war a bàyyi xel lañ naka noonu tamit noonu lay doonee noonu la war a doonee bara bub teral gan ñi kër sëñ Tuubaa moom dafa war a nekk ikraaman lu foo xam ne fu ñuy teralee ay gan lay doon ndax kër sëñ Tuubaa saa sone ne amutoon waxtu guddeeg bëccëg ci yem saa sone gan ñaa ngi ñëw te gan gu ne boo ñëwee rek waa kër sëñ Tuubaa yi dongo yi dinañ la teral teraanga joo xam ne yow daanaka boo gisul sëñ bi sax boo wàññi doo am lu la naqari kon loolu ci teraanga yi kër sëñ Tuubaa ci la ci la bokkoon kon loolu képp kuy wutal kër sëñ Tuubaa kër ak fu man di doon jàpp naa ne yooyu it lu lu mat a bàyyi xel la ba noppit di ko yeesal saa su ne sëñ sëñ Tuubaa këram bis bu ne dindi lii teg fii teg fii saa su ne mi ngi organiser mi ngi yeesal moom tamit euh, kër gi kon yooyu euh, lu ñu war a bàyyi xel jàpp naa ne ci kuy defaral Serigne Touba kër mu doon tamit barab boo xam ne euh, barab bu mel nii ma wax rek day doon nga xam ne képp ko fay dem rek dina baax ci say mbiri àdduna dina baax tamit ci sa mbiri ëllëg ndax nit moom lay soxla lu muy dundee ci àdduna waaye tamit ngir ëllëg kon ñaar yooyu yëpp la nit war a boole moo tax kër sëñ Tuubaa kon dafa war a doon foo xam ne day jariñ nit ki maanaam boo xoolee lu mel ne ira ci yoonu murit sëñ Cheikh Gaynde Fatma bi mu koy sos am na règlement bu mu ci tënkoon boo xam ne joxe na ci misaal buy wane ne ñi ñëw ci daayira bi sax dañoo war a di jariñu ci seen mbiri àdduna mu joxe ci misaal daal di ne jigéen jii jaay caaf buy ñëw ci daayira bi na indaale caafam su ko defee waa daayira bi jënd ci mu am lum dépensoo am lum joxe ci daayira bi ba ca la doon waxee charte yaag nañuy joxe sas yaag ya ci ajoog yépp euh, ca la waxee woon loolu di laaj nañuy laaj lu ñu man di ko def fuñ xam kon yooyu tamit ci li ñu war a bàyyi xel la kon li ma bëgg a wax rek mooy buñ buñ bu ñu tënku rek ci ndax tonte njariñul àdduna yi yu baax la ndax njariñul àdduna li boo koy def ngir yàlla yit ab yoon la lay jural sëñ Tuubaa dafa waxoon ne ku bëgg a gis ku ndayam liggéey ñëwal toog fi sunu buntu kër ku fa dugg rek kooka la daan la wax lu mel noonu ku bëgg a gis ku ndayam liggéey rek ñëwal toog sama buntu kër koo gis mu dugg fa rek xamal ne kooka ku ndayam liggéey la sëñ bi daan def yu mel noonu ci waxiinu wolof maanaam loo xam ne wolof dañ koo xamee nii moom mu indee ko weneen déggin am na fu mu doon waxee kenn ku ne am na lu koy tax gis boppam daal ne nun de bu dee am na lu ñuy tax a gis sunu bopp mooy di ñu tudd di tudd kuñ bind ci tëkkale lu mel noonu de mu amee lu bëgg lu dul bis penc di tey daan ne loolu nag day nuru gis sa bopp loolu ci tomb mu daan wax ci eh, kiyam bi ci la bokk su ko defee li ma doon wax léegi buñ ko respecté kon buñ ñëwee kër sëñ Touba masalan tey jii ci France loolu nag day daal di am beneen dimension ndax kër sëñ tuubaa ci Touba jaadu na te it ñu ci sant bu baax suñu Abdou Lahad mi nga xam ne moo indi concept concept yu mel noonu que sëñ Tuubaa ci Sénégal it jaadu na beneen réew moom man di doon it euh, sax ci ndami sëñ Tuubaa yi lay lay doon waaye bu dee France nag day amaat beneen dimension boo xam ne du bokk ak boo ko defoon ci beneen réew ci Europe ndax bu dee kër sëñ Tuubaa ci France day mel ne rek euh, mbir mbir mbir lay mbir lay doon moo xam ne day junju la sëñ Tuubaa doon wax naan inni uxaatibu nasaara turra fi ardihim li malikin mutarra mooy dinaa waxanteeg nasaraan si ci seeni suuf waxante googu nag nekkut wax waxi kese waaye waxante communication la communication day am jëf am ay fee am ay parole kon kër sëñ Touba ci France jàpp naa ne loolu mooy dëggal kon mu waxoon ne inni uxaatibu nasaara turra fi ardihim ci seen suuf sax kon day doon loo xam ne rek symbole symbole de triomphe lay doon ci diggante sëriñ Touba ak tubaab bi ndax buñ xoolee histoire day mel ne sëriñ Touba bi nga xamee ne jóg na am ndigalul boromam ngir woote yoonam wii mooy li ma doon wax léegi dafa am ay classe sociale yu bari yu jóg ne ko du fi amee tubaab yi ñoo ci njëkk tubaab yi sax am na ñu leen jiitu waaye ñoo ci ëppoon doole dañoo taxaw ne ko li nga wax du fi amee. sëriñ bi ne leen dina fi amee loolu indi coow le ceddo yi tamit xamal ko ne lii nga bëgg wu sa woote bii du fi amee sëriñ si mu bokkaloon jamono tamit ñoom ñëpp xamal ko ne taal bii nga fa yéene taal dinañ fexe ba doo ko fi jafele kon day mel ne ñetti classe sociale yooyu ñoo nekkoon senegal bi sëñ Touba woote ñoom ñëpp nag contre menn moom sëriñ Touba képp ku nekk ci ñoom nga gis ceddo yi pexe mu ne def nañ ko sëñ Touba li tax ñu exilé ko. weesuwut ay rambaaj kese maanaam tubaab yi bu sëñ Tuubaa dëkkoon fu mel ne Saint-Louis wala dëkk ci capital yi ñu di ko gis xam ci lu mu nekk mën nañoo bañ am problème waaye gannaaw dafa am ñu leen fa nekkaloon mooy ceddo yi ak lenn ci sëriñ si daan gis sëriñ bi bi sëriñ bi woote mu mel ne am na xeetu fiiraange gu am seen digganteeg moom ñu daal di taxaw temm ngir dox diggam ak loolu du fi amee ceddo yi ci bari seeni dag di dem di jébbulu sëriñ su bari seeni dongo di di leen bàyyi di dem di jébbalu ci sëñ Tuubaa loolu nag day dafa créer benn euh, situation bu xaw a doy waar ci diggante sëriñ si ak ak waa réew mi ñooñu ñëpp nag fi mu ne ñoo doon dem ci tubaab yi naan leen Ahmadou Bamba de dafa isolé wu dem ca Jolof nekk fa ak ay dongaam yoo xam ne ña ngay waaj ay la muy waaj daal bu sottee ci seen kaw la jëm dëkk ji di ko wax loolu dëkk ci di ko wax loolu ba mujj tubaab bi daan di convoqué sëñ bi bi mu convoqué sëñ bi sëriñ bi wuyu si wut mu daldi dëggal nag lañ doon wax lii moo indi jafe-jafe yi kon day mel ne ceddo yaa ngi fi woon tubaab yaa ngi fi woon doomi soxna yaa ngi fi woon bi seeni pexe jooyee moo waral ñu jël si ko génnee ko am réewam tumurankeel ko juróom-ñaari at yoo xam ne sëñ Touba nee na daj naa fa loo xam ne lu dul ruugu génn rek moo ko gën a metti nee na it daj naa fa loo xam ne rus naa koo nettali sax sama digganteeg sama borom ngir tartar yi juróom-ñaari at yoo xam ne it lépp luy mettit ak tiis teg nañ ko ko waaye lépp it nag sëñ bi muñ ko rek muñ ko rafet moo tax sëñ tubaa daan na wax ne bu daan digal taalibe naan leen kuñ ku ci amatul la naqari na ko muñ ndax man de damaa mos ñu tooñ ma ma muñ sunu borom fay ma fayul ma dande kon nag maa ngi leen di dénk it ku ci amati lu la naqar rek na nga koy muñ moom sëñ Tuubaa yemut sax ci muñ ko yemut sax ci muñ nattu yi waaye da caa dolli sax noonam yooyu may wax ñoom ñëpp daf leen a jéggal maanaam da leen a gañe ba noppi daal ne afawtu anil a'daa turan li wajhi man nafaahum li ghayri sarmadan lastu adfa'u du ma fayu mukk loolu nag moo ci moo ci gën a yéeme kon taxawaay boobu la am ci digganteem ak digganteem ak ñooñu ñi nga xam ne ñoo ko doon bunduxatal ak ñi ko doon fexeel ak ñi nga xam ne ñoo ñoo ko doon tumurankeel mooy ñetti classe yooyu ma wax ñooñu mooy ñi sëñ bay jaxate doon doon junj ci waayam woo bam naan ba foo ree ki kaang ak ñëpp jariñ mu seexal ku jàngul aw araf ñu ne moo fi daanu ba yàlla ye ne nun wunti yàlla yi ñoo ko yor mu faf dox fu kenn foogul ñu bokk ne moo fi daan ba buuri wolof ne lii ñu yor ku ko bañ du wéy mu xëy teggi leen ak seen yëf ñu ne moo fi daan ba buuri tubaabit ne ñu mos waa ji moo ci des mu yëm mu ne gar fit yëpp dem ñu ne moo fi daan mu xëy déglu déggul fenn kuy baj bajee ka bañ mu ñibbi këram ndaanaa nangoo ndaanaa lu yàgg daan nga xam ne mooy ñetti classe yooyu ma may wax ne ñoo nekkoon jafe-jafeem digganteem ak tubaab yi waaye ba mu jaamaarloog la mu jaamaarloog ñoom te it mu doonoon loo xam ne loolu moo dox digganteem ak boroomam ngir lii mu ñu añalee tey ndax sëriñ bi am na fu mu koy misaalee di wane ne avant muy dem ci géej gi mu ne lu jiitu muy dem ci géej gi fu ab sëriñ di egg ci wilaaya ci imaan islaam ihsaan nee na egg na fa waaye nag lim soxla woon mooy al ak yaqiin maanaam kamaalul imaan kamaalul islaam ak kamaalul ihsaan nee na ñett yooyu nee na loolu moom mënu ko woon a amee ci lu dul jaxasook tubaab yi te jaxasoog tubaab yi mooy sabab bi gën a gaaw ngir rekki ngëm kon sëñ bi dafa mel ne risque la jël boo xam ne rek ngir xettali nit ñi kese xettali jaam ñi kese moo ko tax def nag ndax bu fekkonte ne bii sëriñ bi lu jiitu muy dem ci géej gi liggéeyal na yàlla loo xam ne mën na cee réussir mën na cee dimbale nit ñi waaye nag nee na am na fu mu bëggoon a egg ci digganteem ak boroomam ci digganteem ak ñi aju ci moom ndax am na fu mu wax ne ñi aju ci man bu ñu woon ci man danañu dem safara donte benn saa lañ fay def sax ba noppit leeral na it ne ñi aju ci moom moom moo leen tànnoon ca la jiitu woon mu ngi ci téere bi fu mu koy waxee sëñ ma bànji naan ko ndax xam ngeen fu ma ànd ak yéen sëñ ma bànji ne ko euh, nakk-nakal sëñ bi ne ko maa ngi ànd ak ci yow ma alastu waaye ba sunu borom bindee ruu yi kese ne ko booba sunu borom dafa bind ruu yi teg leen fi barab daal di ñëw ci ruuxuk sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko dina wax kàddu go xamne suma ko waxe rek na nga jekk tontu neel balé neena sunu borom jekki bam yag dal ne ala bi rabbikum neena bi sallallahu alayhi wasallam tontu dal ne ko balé señ bi neena na yonante boobu sallallahu alayhi wasallam mo ñew ba ci man ba ci sama gro nema amna kaddu go xamne sunu borom mi ngi koy waaj wax su ko waxe rek neel balé señ bi nee ba sunu borom ne ala bi rabbikum ginaaw yonante bi man mi ma ci top mané ne ko balé mu dal di ne bima noppé nak ci la yonent yi daal di tontu saalixoon yi tontu awliya yi shuhada yi ba ci julliti simple yi ci waxin wala ordinaire yi nee na ba ci yéefar yi sax am foofa ci jataay ba ku ne ko kon yéefar yi ci lañ bokk sëñ bi ne ko foofa moom barabu balee la ku fa nekk ku nekk wax nga balee ne ko yéefar yi dañ koo wax ba noppi ñëw fii soppi gisin nee na nag sunu borom bi mu wax nammee nag doomu aadama wàcc ci kaw suuf nee na dafa waxaat ak waxanteek ruux yooyu ne leen bi ma nee alastu bi rabbikum kan moo njëkk a tontu nee na ruuxu yonent bi ne ko man nee na sunu borom teralee ko ne ko nanga nga tànn ñi ngay àndal maanaam tànnal ñi war a doon ay jullit te ñu ànd ak yow say saxaabaak ña nga war a àndal boo wàcce nee na ruuxu yonent bi tànn ba doyal nee na sunu borom daan ne ana kan moo ci toppoon sëñ bi nee na ma ne ko man mu ne ma yow tànnal sëñ Tuuba daal ne sëñ ma bànji foofu nag laa leen naxee ndax dañoo jàppoon ne dañuy damay tànn ca jóor ba ma dem fekk la yonent bi tànn ma tànnaat ca daal ne ko looloo rek tax ngeen mel seen melokaan yi maanaam kon loolu mooy dëggal kon li sëñ Mat Lamin Jóob di wax ci Irwaa Nadim naan sëñ Tubaa dane woon yéen murit yi saxaaba yi ñooy seen bàyyi ci diine ñooy seeni nawle kon ab murit saadax dëgg saxaaba yi la war a def nawle ndax loolu la sëñ Tubaa jàngale woon kon su ma dellusiwaatee ci eh, liñ doon wax dafa am ñetti mbir yoo xam ne mënees na cee jàngee kon kuy taxawalal sëriñ Touba mbir mooy ay laaj yoo xam ne ab tubaab dafa ko koo laajoon tubaab bi daa ñëw ci sëñ Touba ne sama kilifa nekk tugal daf maa yónni ci yow ngir ma laaj la ñetti laaj yoo xam ne bëgguma cee dégg dara lu mën a xari interprète bi daal di koy wax sëñ bi sëñ bi daal ne interprète bi ne ko nee ko lim may laaj du ci dégg lu du dëgg tubaab bi na ko kon di tàmbale laa naqari waaye teewut rek dinaa laaj daan ko laaj bu njëkk bi mooy dañ la doon laaj ba xam ñaata taalibe nga am sëñ Tuubaa ne ko kuy jublu penku loolu mooy li mu li ma doon wax ne kër sëñ Tuubaa képp kuy jublu penku rek wala képp kuy mu def da cee war a jariñ tubaab bi daal di insister ne ko xam naa ne képp kuy jublu penku ab jullit nga waaye li ma bëgg xam mooy ñi nga xam ne dañoo jaayante ak jox la seen bopp ñaata lañ sëñ bi ne ko li tax ma ne la képp kuy jublu penku sama taalibe nga mooy képp kuy jublu penku am na loo wut ci yàlla loo xam ne boo ko laajut ci sama barke doo ko am ba mukk koo xam ne nag la muy wut ci yàlla bu ko laajut ci sa barke bu ko am du ko am su ko xamee su ko xamut lépp sab taalibe la tubaab bi ne ko boobu leer na ñaareel laaj bi mu ne ko dañoo seetlu na dañoo jaar ak yow fu bari mooy li ma doon nettali léegi ne ko it teg nañ la ay nattu ak itiis yu metti te fi ñu jaar ak yow xamuñ ndax ëllëg di nga fayu wala déet sëñ Tuubaa ne ko ndaw dee su ko laaj lu mu war a xëy liggéey danga koy laaj ka koy liggéeyloo tubaab bi ne ko ku lay liggéeyloo mu ne ko yàlla sunu borom mu ne ko sunu borom moomu moo may liggéeyloo te bu ma santee fayu li ngay ragal dina am bu ma santul dara ci yéen nag awma ci yéen soxla mu ne ko ñetteelu laaj bi mooy dañoo gis ne nun de dañoo jaay sunu deret jëndee ko réew mi ba mujj ñu jël ñu gàll ci waa réew mi ay galak galak mooy impôt impôt yoo xam ne jubluwuñ ci lu dul rek wane sunu kilifteef ci ñoom te liñ leen di laaj matul sax benn dërëm ci impôt waaye dañ ci am jafe-jafe ngir ngir jot ci ñu gis ne yow nag danga jekki ba nga sas leen kenn ku ne mu war a joxe ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett mu ne ko li ñu ci yéem nag mooy bi nga ko laajee rek ci diir bu gàtt ñëpp dañoo joxe ba mujj danga ne ku joxe wutoon doy na maanaam foofu danañ ci gisee kon sëñ ni mu daan diglee luñ koy liggéeyal mu ne ko da ngaa laaj ñëpp gaawantu joxe ci diir bu gàtt ba mat ba mujj da ne ku joxe wutoon mat na tubaab bi ne ko li ñu bëgg xam nag mooy yow ban stratégie nga mën a jëfandikoo ngir am loolu sëñ bi ne ko loolu de yomb na loolu li ko waral mooy dangeen ngeen maa njëkk ci jëmm yi. mu njëkk leen ci xol yi ne ko xol yi maa ko moom tubaab bi ne ko loolu dese naa leer ci man sëñ bi ne ko gis nga njaareem gii mu ne ko mu ne ko buñ ko duyoon ba mu fees dell ak la mu fees yéen ngeen moom li ci kaw man ma moom li ci biir tubaab bi ne ko kon de yaa ñu gën le sëñ bi ne ko fop kon foofu li ma ci jubloo xamle rek mooy ni sëñ Tuubaa daan digalee murid yi masaan a am projet beneen bayit mooy foofu kon dañ ciy xamee ne sëñ Touba xol a koy liggéeyal loolu mu wax ne ne da ngeen maa njëkk ci jëm yi ma njëkk leen ci xol yi wan ko ne xol yi yëpp danañ ko nangul am na fu muy dem ba naan murit murit danañ dem ba tollu jamono joo xam ne murit saadix dëgg du dégg wolof loolu sëñ Moussa Ka indi na ko loolu nag jàpp naa ne sëriñ Touba bu ko waxee li koy jëmmal mooy ñun taalibe sëñ Touba yi ci ñun lay war a feeñee ndax sëñ Touba day ñaan yàlla yàlla defal na ko ko. waaye defal gi tamit day am sabab sëñ bi ñaanoon na yàlla jumaa joo xam ne day taxaw tuubaa waaye jumaa ji ñi ko doon waa këram sëñ Modou Moustapha sëñ Fallou ak taalibe ñoo ànd taxawal ko ñaanuk sëñ Touba nangu kon lii sëñ Touba doon wax lépp it murit saadix lu dégg wolof inni uqaatibu nasara ak yooyu yëpp tamit muriti sëñ Touba yi nekk fii ñoo ko war a jëmbal ñaanuk sëñ Touba gi nangu te li ci yéeme mooy sëñ Touba moom li mu bëgg day am muridi def ko ak bañ ko def waxon nako seigne Modou Moussa ak sëñ Fallou ne len juma ji ma bëgg su ko taxawalut suñu borom dina sak ay mbindeef yu ko defar kon keur seigne Touba gi ci Toulouse ak fenen fu man donet bu ko muridi yi defarut sunu borom dana sak ay ay mbindeef yoo xam ne ñoo koy taxawal yàlla na sottee nak ci yéen ci barke seigne Touba. rôle bi nga xamne mom la keur seigne Touba wara jouer ci gox yu melni day doon lo xamne kon dañuy fexe ba am rôle universaliser message bi nga xamne mom la seigne Touba indi. ba mu daj kàpp ndax sëñ bi ñépp la woo yaa ahla barri yaa ahla barri bahri allahu yansuru nii wal xalqu yatbaau nii fil bari wal bahri kon ñëpp ñëpp a war a ñëw par principe ñëpp a war a ñëw loolu nag ci yu mel nii rek lay jaaree jàpp naa ne di wax ak waa réew mi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi di wax ak ñoom ci seenu làkk naka noon tamit di jéem a traduire yenn téere sëñ Tuubaa yi nga xam ne daf ko bind ngir mbindéef yi ngir ñu jariñoo ko ak yenn ci ay ndénkaanam yi di ko jox waa réew mi di ko jariñoo di woote tamit yu mel ni bis yoo xam ne bis bu ñuy gaaral xamal nit ñi xamal waa réew mi kan mooy Serigne Touba ba ci sax ñi nga xam ne xëy na euh, dañoo bokk ak ñoom diine wala ñi nga xam ne sax bokkuñu ak ñoom diine gaaral leen sax mbindum Serigne Touba ndax sëriñ bi moom koo xam ne mën nga ne 75 ans yi fi nekk dundam gépp da koo da koo passé ci bind kooku jàpp jàpp naa ne yomb naa yomb naa layal yomb naa waxal mu doon bis yoo xam ne ci misaal gëstukat yi. universitaires yi dignitaires yi ñoom ñëpp dañuy ñëw ñu wut ci yoonu murit ñoo xam ne mën nañoo wax ak ñoom wax leen dimension mbindum sëñ Touba ak solution bi nga xam ne mën na koo indi fii àdduna bi toll ci jafe-jafe àdduna tey jii misaal nax ju xadaa il xaaj rek bu ko daayira bi euh, taxawaloon ci traduction yi mucc ayib fexe ba vulgariser ko ci mbooleem ñi ko mën a jariñoo ñëpp rek ci sa mbiri àdduna rek daf lay jariñ ci sa àdduna rek te li sëñ Touba koo xam ne di koo fi ngir ëllëg ñëw fi ñu defaral la sa tay rek jar na nga di ñu njëkkante maanaam njëkkante sëñ Tuubaa sa tay jag rek jar jar na ko kon am na ñoo xam ne xëy na kenn du leen jaru sax di leen propagande ci doon def leen ay murit wala def leen i jullit waaye li ci am solo rek mooy ñu xam ne kat jëmma ngi ñu ñuy wax Cheikh Ahmadou bàmba di ab jullit di liggéeykatu yonente bi di ab noir di koo xam ne scientifiquement buñ ko buñ ko seetee mooy ki ëpp lu mu bind ci ci kaw suuf mi ngi nii mooy ki ëpp yërmande ci kaw suuf ndax fi mu jaar ak noonam ak fa mu mujj ñoom kon kii su boobaa jàpp naa ne njariñ lay doon loo xam ne ñëpp ci mën a profité ngir profiter ci mel noonu nag moo tax kon lu mel ne kër taxawal barab boo xam ne centre lay doon boo xam ne bu ñu jagleel sëñ Touba dana ko yombal. nan la ñuy def ba mu taxaw. loolu jàpp naa ne mooy delluwaat ci cosaan rek xool sañ tubaa ci boppam bu ma saana am projet naka la daan def ba projet bi taxaw joxe naa ci misaal léegi ci liggéeyu njaareem bi sëñ Modou Moustapha radiyallahu anhu da daan wax lu mel noonu daan ne liggéeyal sëñ ci ñeenti mbir lañ ko mën a defee mooy alal ju lew ak doole ak xam-xam ak xel mu rafet kon loolu mooy participation yi nga xam ne bu mu ci doon ci ñeent yooyu rek bu ci benn murit xeeb dara bu mu ci doon rek na ko indi liggéeyalee ko sëñ tubaa ndax yooyu yëpp rek. ci lu luñ mën a liggéeyalee sëñ Touba la ngir fexe ba projet boobu mën a taxaw euh, sëriñ Touba bi muy taxawal jumaa njaareem dafa laaj murid yi kenn ku ne ñaar fukk ak juróom-ñett ci ngordu ba ñëpp joxe wax naa ko léegi waaye loolu li ma ci bëgg a wax rek mooy da nga ciy gis ñaari extrêmes yi maanaam ñi ëppale alal ak ñi néewle alal ñoom ñëpp rek kenn ku ci nekk sa yéene bi mu feeñee ci liggéeyu jumaa ji rek ci la lépp sotti waaye dañuy jël kaawu ku mel ne sëñ Bay Sarr moom li mu def mooy rek dane jumaa ji di li fekk mi ngi fi bis bu ne dinaa joxe dërëm ba ñuy lim ñi ci ëpple boo see Ibra Fall nangam nangam quatrième position sañ Bay saar la te li ko ko may mooy loolu mooy sax sasoo loo xam ne donte néew na sax waaye bis bu ne dinaa def dërëm moom ba keroog jumaa ji noppi kon loolu tamit ci waxin rek mooy bu ci ab murit xeet dara ngir taxawal kër sëñ Touba moo tax biñ liggéeyee liggéey ba liggéey bi noppi sëñ Touba daf leen ne liggéey bi ngeen doon def lépp lu ngeen amati bépp projet bi ngeen amati na ngeen koy taxawalee nii mooy na ku ne indi la man te it bu kenn tàyyi bu kenn bàyyi daan ne leen liggéey bii su ma ko santoon tubaab bi danañ ma ko defal na ma ko bëggee waaye nag bëgguma leen sant dara ñu di ma ko defal ndax ku la mënal sañal la te yàlla na doon kala war a sañal ndax ku la sañal ku ne mën na laa jubale foo xam ne bokku leen ay pas-pas yéen ñaar moo tax kon su ngeen amatee projet rek bu jëm ci l'islam nangeen ko taxawalee nii mooy kenn ku ne na indi lam man lum néew néew ak lum bari bari kon kuy kuy taxawalal sëriñ Touba kër jàpp naa ne principe boobu rek mooy li ci ëpp solo te mat a bàyyi xel mooy defee ko noonu mooy euh, defe naa mooy li euh, anglais yi wala kii yi canadien naan crowdfunding defe naa yu mel noonu nga xam ne kenn ku ne da ngay indi la nga man ñu boole lépp loolu su boobaa mooy mooy mooy mooy daal di doon doole ji loolu sëñ Touba moo ko njëkk a def lu jiitu Touba bi di ko théoriser waaye boo ci bàyyee principe boobu rek ak loolu Cheikh Moustapha Mbacke wax ci wane ne kenn ku ne ci ñun kenn ku nekk rek na indi la nga xam ne mooy la mu man su boobaa kooka loolu day doon xitma ndax taalibe bu ne am nga àq sa digganteeg sëñ Tuubaa ci di war koo xitmaal te képp kuy xitmaal sëñ Tuubaa di ko liggéeyal la ci sëñ Tuubaa ñaan doy na sëkk innal na saari'u li xidmati fa la lahumul diyaaru wastal jannati ñi nga xam ne dañoo sax ci dima liggéeyal te di ci njëkkante seeni kër ña nga ca digg àjjana wax di waqdi xawaaija allazina daamu fi xidmati wahab lahum maaraamu képp koo xam ne dafa may liggéeyal na ngay faj aajoom te lépp lu mu bëgg nanga ko ko defal jàpp naa ne kon loolu foofu lay daanele bépp murit bu nekk Toulouse rek wala ci biir réew mi na nga xam ne daal sa këruk àjjana mi ngi ci loolu taxawalal Serigne Touba lii sëñ Modou Moustapha ba muy tabax jumaa ji lu mel noonu la wax ne képp koo xam ne def nga ci sa dërëm na la wóor ne di nga jariñu fi di nga jariñu fa di nga jariñu fele te lol sëñ Tuubaa ko waxon ci miñul bopam kon maa ngi yal jéglu wat bax rawati na nak yool yi nga xamne ño ci nek képp ko xamne def nga ci sa alal lum néew néew ku fa jang alxuraan ku fa jang xam-xam ku fa yëkkati xasida ku fa zikrullah ku fa def jep jef ju bax rek ak fo mën ne ngay dundu ak ngay ngamign fe nek lepp lépp sunu borom daf la koy defal ndax liggéeyal yalla la sëñ Tuubaa dana won yalla da neex a te naqare liggéeyal li tax mu neex a moy soo ko dee liggéeyal du ne la lii laa lay faye du ne la fii laa lay faye waaye li tax mu neex a liggéeyal tamit mooy bis bu demee ba di la fay du seet yaa ngi fi du fet du seet nekkoo fi dalay fay bu la gisatu di fay say doom di la fay ba foo man di nekk loolu moo tax mooy ki gën a neex a liggéeyal ci ci àdduna te liggéeyal yàlla nag mooy liggéeyal Serigne Touba kon noo ngi gaaril suñuy kàddu foofu di ñaan yàlla kër gi sotteeg jàmm Serigne Touba nangu ko wasalaamualeykum wa rahmatullah